nee itam mi ngi leen di fàttali bu baax a baax kuréel gi nga xamante ne nii moo leen lëkkale di kuréelu daayira ñu tudde ko islaahu daarayni mooy luy yéwénal ñaari kër yi kon tur wi daa war a méngoo ak li ngeen di def nee na ngeen fexe ba ku leen séen na leen xeemeem ku leen fekk si na leen naw ku jaxasoog yéen bu mu leen mën a tee baax ndax jikko ju rafet kon na ngeen boole seen bopp te yàlla tax na ngeen boole seen bopp te yàlla tax ndigalul suñ borom la mu fedd liwaat ci ay ndigalam suñ borom moo ni wa'tasimu bi ab hablillahi jamian wala tafarraqu yàlla moo ni ànd leen jàpp ci buumu yàlla gi te bu leen tàggoo moom nag li ko ci war mooy di leen ko fàttali dajalewu leen ngir wut xaalis dajalewu leen itam ngir li ngeen di am di ko jox lii tax ngeen ànd su doon ak njëga bu ngeen dajalee ba pare te matul njëg day làmb poosam dolli ci ngir ngeen ànd lu ngeen am ak lu ngeen ko mënal ngeen ànd ko ko gënal kon nee na ngeen boole seen bopp te yàlla tax di dimbalante te yàlla tax di jàppalante te yàlla tax di suturalante te yàlla tax lu waay moroomam nag ku dimbalee ngir yàlla ku ci gis sikk ci moroomam na ci teg tànkam te ngeen muñalante ñaar ñoo gis ñuy ànd fukki weer ak ñaar te tàggoowuñ bul jàpp ni dañoo amul sikk dañoo xajoonte nee na ngeen xajoonte bu baax a baax te gën a ñemente daayira bi na ngeen di laaj lu man te di ko def fu ñu xam su ngeen ko defee bu ngeen wootee nit ñi danañ ñëw bu ngeen leen laajee danañ leen jox da ngeen góorgóorlu bu baax a baax ci mottalante ci seen diine da góor di góorgóorlu ci soññante ci lu baax kenn ku ci nekk fas yéene sa moroom du la jiitu ci lu baax ni mu leen koy dégale nag yéen ñëpp la ko boole wax muy góor ñi di jigéen ñi da ngeen góorgóorlu bu baax a baax loolu waxoon na ni naa leen naa leen ko fàttali bu baax a baax ngir lan seen maam Cheikh Mouhamadul Moustapha dafa waxoon seen waajure ni leen képp ku ngeen àndal te mënu leen a tax mu jaamu yàlla mënu leen a tax mu lëggeel yàlla na ngeen teel a génn ci moom su ngeen ko defut bis dana ñëw ngeen ni siiwa tàggoog moom mu taleen tëcc foofee nag du xaar ba ngeen àgg fa muy door a seet pexe yéeneem ci yéen mooy bu sañoon nit ñi yéen a ciy gën yéen a ciy gën a jóg loolu nag dara du leen ko may lu dul jëfe ndigalul su borom bi ak moytandiku tere yi loolu mi ngi leen koy fàttali bu baax a baax ba pare nag nekk ci seen kanam fàttaliwu leen ko dem tëdd waaye lu mu leen di digal su ngeen ko séenee mu man leen ca fopp waaye nag sëñ Mbàkke Soxla daan wax ni koo xam ne mënu leen a ñàkk ànd te soo jógee doo ko nekk danga nga koy soññ bala ngaa jóg moo tax mu leen di soññ na ngeen góorgóorlu bu baax a baax ci ànd na ngeen góorgóorlu bu baax a baax ci fonk seen diine na ngeen góorlu bu baax a baax ci jàng alxuraan jàng xasida istixfaar lépp lu nit di def ci lu baax bu leen ko jombale seen bopp daw leen wuti ko lu tax mooy man amila saalihan fa li nafsihi lépp lu waay def ci lu baax sa bopp képp nga ko defal in ahsantum ahsantum li anfusikum képp ku ci rafetalit na la wóor ne rafetal ko koy sa bopp rek nga koy defara defal lu tax mooy ëllëg dana ñëw wa anna laysa lil insani illa ma doomu aadama amul lu dul lu mu def wa anna sa'yahu sawfa yura te jëf joojee ngay def suñu borom dana la ko delloowaat te bëgg na keroog bisub delloo ba du ngeen ñee kenn moo tax mu bëgg ngeen fet di liwaat laxasaay te yokk yitte yi sant na leen bu baax a baax nag xeebut seeni taxawaay xeebut seeni jëf waaye daa bëgg ngeen góor góorlu la sëñ Cheikh waxoon donga yi ca bay laa bañ dajalee seen addiye ba indi ko sëñ Cheikh dañ leen xeebuma ko naw naa ko lool waaye barab nag bu fekkee loo fa indi la nga fa yaakaar a ko ëpp war góor góorgóorlu bu baax a baax ndax lu ngeen fi mën a indi li ngeen yaakaar ci barab bi moo ëpp fopp li ngeen fi indi te li ngeen fiy def seen bopp dong ngeen ko fi indil te sëñ daa waxoon li ngeen may jox ñaar rek laa leen ci mënal danaa leen ko dollil ba ngeen mën koo jariñoo danaa leen ko dencal fu yàq ak aggul te moom da ngeen di teg ci loxoom waaye dénku leen ko sëñ ngeen di dénk moom nag ngeen di jaarale seere la ci li ngeen di joxe waaye joxu leen ko sëñ ngeen di jox kon nan góorgóorlu bu baax a baax ci boole sunu bopp góor góorlu bu baax a baax ci gën a rafetal taxawaay yi góorlu bu baax a baax ci lépp loo xamante ne ni dañ koy def ci lu baax bu nu ca kenn xeet ndax dafa bëgg ngeen doon ay échantillon ci yoon wi fu ñuy joxe exemple ci yoon wi ci ab morit nu mu war a mel ku leen xam te nekk ca jataay bi mën leen a tudd ndax sëñ tubaa daa wax ni képp koo xam ne des na lu tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man te su nit jógoon di ma seet si su yemee ci yow duma ko jaral ak si ndax saw melokat sëñ tubaa nee na doo jéggi siraat mukk te layoo wuñ ko mag yow kon nee na na ngeen defaraat defaruwaat bu baax a baax te gën a bàyyiwaat xel barab bi ngeen nekk bàyyiwaat xel itam ci biir mbooloo mi ngeen nekk fexe ba doon ci ay royuwaay fexe ba am ca yéen a waxal seen bopp li leen neex ci jëmmam yéen a ko waxal seen bopp kenn leelu leen suukar kenn ku nekk wax na ko ci yéen boo kenn waxoon ñu ne xalaatam la waaye kenn wax na ko kaneen wax kaneen waxaat kon loola dëgg la ci moom melokaanam woowee yéene na leen ko te yi rek la bëgg ngeen nekk kon nee na na ngeen góor góorlu ñi nga xamante ni dañoo toll ci jàng sëñ bi nee na ngeen góorgóorlu ci njàng mi moo xam góor la moo xam jigéen la ngeen ci góor góorlu bu baax a baax te jiital ci jàng seeni farata sëñ Tuubaa wàccoon ak noonu sëñ Tuubaa nee na digal naa képp ku aju ci man nga jàgg sa faratay diine teg ca nag ni warlul naa leen bindal leen téere yi ngeen koy jànge kon lu nu umpale ci suñ diine sunu yaa fuusa waaye du ñàkk xam fu ko jànge du ñàkk xam ko nu ko jàngal te li ñuy daj ci àdduna buñ ko dajee ci yàlla mu doon suñ tawféex te bokk yi nangu na noo sonn lool ci àdduna nangu na yoo sonn ci àdduna lool bépp coono bu nu àdduna teg danañ ko tegoo boole koog mbégte coono bu nu yàlla teg nu boole koog njàmbat te moo gën ci nun bëgg nu nu bokk ci ñiy sant te bañ a bokk ci ñuy xarab ñu sant yàlla bu baax a baax bi mu nu defee ay jullit boole nu ak sëñ Tuubaa yàlla desee la tunu dara nun rekk li ci des ci nun la kon nee na ngeen góorlu ci ci njàng mi ñi ciy def métier itam góor góorlu ci métier mi te am daluk man faa toog ba kañ seqal métier ma gërëm leen lépp looy def te amoo ca ngërëm boo ko mënee doo ko jariñoo bari na ko am métier te mënu caa jariñu ka ko doon jàngal métier ma la xolam seddut ci moom da ngeen amuk tey bu baax a baax te ràññet la mi jigéen ñi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant gis na taxawaay yi ngeen yendoo gis na itam njàmbaar gi ngeen di def ci biir daayira bi mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaan ngeen dollee góorgóorlu bu baax a baax ñi ci ami borom kër yàlla na leen suñ borom jubale ak borom kër yi ñi ci amagul ay borom yal na leen yàlla sàmm ba teg leen ci loxo yi ku leen mën a yor loolu mu ngi leen koy ñaanal di leen ci ñaanal njaboot gu barkeel waaye li mu doon dénk góor ñi rek loolu rek la leen dénk na ngeen góorgóorlu ci seen diine te bañ koo foyee na ngeen góorlu bu baax a baax ci seen diine te bañ koo foyee na ngeen moytandiku jayi àdduna yi mooy dama cee toll ak dama toll ci sama temps déedéet daa am luy ñëw ca kanam te waxut kañ lay ñëw waxul waxtu lay ñëw mooy danga xëy yandu ñi mbaa nga gont fanaan yi te kenn xamul kañ la loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax moo tax mu bëgg nu teg suñ tànk ci lu ñu xam te mooy sax ci siraatul mustaqim moom ci lool yi la nekk li ci des nag mooy mi ngi leen di ñaanal ci sun borom mi nga xamante ni lépp ci loxoom la nekk lu ngeen di ñaan lu ngeen di mébét di ko xalaat ci seen xol yàlla na leen ca defal lu kawe seen jot ndax yàlla kat li muy mayee bari na lool waaye ba léegi dese na lu amagut borom loolee ma ngi cay ñaan moo tibb ca lu leen doy sëkk jox leen ko mu ngi leen di ñaanal bu baax a baax da ngeen dollee góorgóorlu yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla barkeel yal na yàlla dëgëral leen ndax xam ne seen yéene ci moom xam na itam taxawaay bi ngeen fas yéene taxaw ci moom moom nag li muy wax rek mooy yàlla bu ko yàlla jëppi ci ñaan ci yéen waaw lim leen ëmbal ci xolam làmmiñ mënu koo tudd te buñ doxee tuuti incha allah da ngeen ci xam dara laneen la ca des ca kanam li kanam la ca péncum suñu borom ma yal na suñu borom boole dimbali boole nu taxaw yooyu mooy kàddu yi mu waxoon nii naa leen ko jottali jërë ngeen jëf mi ngi leen di sant bu baax a baax na ngeen doollee góorgóorlu te doollee boole seen bopp te jàppante ngir yàlla tey dimbalante wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu